yo guys it's your boy Maro I'm back again with another video please don't forget to subscribe like comment and share Degule kibadi eh! Welcome to the Gambia, the smiling coast of West Africa. The smiling coast, but our people are not smiling. The boo xam ne tànki gannaaw rek la tànki kanam The yi dem kanam ñu ñuy dellu ginnaaw Gambia oh Gambia koo gis mu ngi mer fut ndig dëkka bu naxari tikka boo xam ne yokku rek maalo yokku na eh. diwlin yokku eh. soble yokku eh. pombiteer yokku paas waxi connection fat fat mu ji subhanallah baadoole yi rek ñooy sonn léegi damay laaj looy laaj dëkk bi lu fi yomba xanaa ñu laaj gaay ñu comment dëkk bi su waroon a am sant naka la war a sant xanaa seer Gambia seer dëkka ka bo ne presse control bi kenn respectu nit yi seen boppa ñoo bon soxorante yi gambien bi du support moromi gambien sun toge di wax dëkka bi dafa naxari naka la mo neexee nit yi buggante woon est ce que duñ jaay dëkka bi sax ñu séeddu ku nekk am sa wax ay le mon paranku yi subscribe eh. follow and like wanal na lii wa